Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. de ceux qui les accompagnent mm-hmm. hein? ça veut dire tout simplement que euh, physique est ci Moi je crois qu'il faut qu'on prenne toutes les dispositions c'est pas que comme nous avons les commissaires de Kafrine et de Kungel. non non je crois que du vous la ñuy régler problème fi ñu régler problème moy au niveau des coalitions des partis des militants ñu wax ak ñom si njëkk mm-hmm. convoi mm-hmm. ngeen di sensibiliser avant ngeen di dem convoi mm-hmm. fa la jaar aussi ñu sensibiliser nit ñi hein? démb dem n'a ba ba gis euh, États-Unis mu gis euh, mu nek ben marque bo xamni de de kii citoyenneté pour man sax gisuma ko woon si États-Unis ak Trump mais gis naa des groupes de personnes yoo xam ne mhm. dañoo yore seen pancarte rek di encourager nit ñi pour ñu dem voter yi mhm. bi ñu leen laajee ah yéen pourquoi neewoo leen euh, voté leen camp bi wala camp ba ñu ne non non ñun daal. waaw euh, citoyenneté la ñuy dawal. gis nga loolu. il faut mhm. que mu yokku Sénégal. Ah. société civile ba ko doon def. dégguma leen lool ci élection yi. waaw société civile yi moom. ñoom ñoom euh, bon dinaa arrêté di leen attaqué parce que je les ai assez, <laughs> euh, arrêtés. Oui, mais tu as raison, parce que dans des bu violence. les intellectuels ils lettres. très bien il faut que tu aies un finalement non parce que ce qu'on a constaté c'est que mhm. projet PASTEF les masques sont tombés. pour ah, l'intérêt du du du Sénégal. Ah, hein? intérêt PASTEF mhm. mais je crois que. quand mhm. boo mën a nekk. Mhm. même bu dul société civile. dès lors que yaa ngi def politique rek wala mhm. lo meuna def. war nga meuna a pour violence bi wàññeeku. dëgg la waa PASTEF nañu gëna wo sen militant yi. ñu wa waa takku wàllu dañ ko def. ñeneen ñi dañ ko def sàmm sa cadeau nañu nañu gëna woté pour que violence bi jeex. te gis ngeen nak ñay xex di dem di attaquer bañ leen di gañ ñooñu euh, ñoo ñak rek. dëgg la. yéen a ñàkk rek. Mhm. parce que euh, ñiy jiite convoi yi. Mhm. ñi nga xam ne ay kilifa lañu. Mhm. di def euh, li seen doom. du gaañu. seen doom du sànni xeer. dëgg du ñu mas a yónni seen i xeer seen doom wala ku ñu xam du gaañu. kañ ngeen gis ah benn Malick Gakou de laa ci dégg nii gaañu na. loxo bi dem mais bu dul loolu. ban leader nga dégg ni gaañu na. amut ils sont tellement protégés. wow, wow. mais yeen ñi nga xamni yeen ay a ci sen ay V8. def sen ay caravane nekk ah, seen climat yeen ah. ngeen top ci di. yéen a nek di di yuuf di ki nek dans la eh. périphérie ñom ñu am seen garde corps. donc <laughs> sénégalais yewu leen. ah yeewu nañ def na yeewu leen. bàyyi leen violence bi jigu mm-hmm, leen. Mm-hmm. euh mang koy mang koy wax sank affaire campagne bi euh, violence et 48 on a eu plus de 40 listes. 40 listes yooyu tey jii yaa ngi wax sànq Sonko jiitu na leen et c'est vrai <laughs> visibilité bobu pour sénégalais yi am ko et qu'est-ce qui explique déjà cette pléthore de de de candidatures waaw non xam nga parce que l'espoir effrité ou wala ils veulent prendre en main leur leur destin waaw mais xam nga parce que duñ duñ leen faale lu ñu leen assemblée c'est ça aussi non c'est que ils veulent euh, waaw non mais man dal man dal lima gëm bo fekkee sama dëgg rek nga bëgg dégg moy mhm. gaay Sénégal taxu leen a waaw waaw ay sauver Sénégal ak ah. ay kii déedéet gars yi daal ku nekk euh, pukus boo mën a rëcce ngay wër dëgg la yaakaar nga ni boo créé liste déjà mhm. un mhm. di nga am benn visibilité bi dëgg après pour nga mën koo jaay après mhm. même boo nekkul député dëgg la nga man koo marchander parce que on t'a vu parmi les gens qui ont wax nga télévision génn la on t'a invité wër nga dëkk bi

aw ma député waaye jot naa am hmm. cinquante mille yu ma wër de. dëgg la ndangam nangam daal di naxante loolu de. jox jox naa la ko. waaw.